yàggal fi cheikh Mouhamadul Muntaqa yokk ko wér mu àggale ay yéeneem nu dellusi rekk ci waxtaan yi nga xam ne dañ koo jëmale ci weer wu tedd wii nga xam ne suñu kilifa yi ñu jiitu dellusi nañ ci ngëneel weer wi waxtaane ni ñu ko war a waajale fàttali njariñ yi ci nekk lépp mu doon waxtaan yu am am solo nu bëgg a ñëw ci li nga xam ne nag moom weer wi day weeram muy alquranul karim waaye nag bu ñuy waxtaanee alquranul karim ci weer wi dañ koo bëgg a waxtaane ci diggam ak cheikhul qadim radiallahu anhu ni mu ko fonke woon ni mu ko jàppe woon ak li nga xam ne lépp euh, suñu boroom wala junj na ko ci li ko ci suñu boroom subhaanahu wa defal loola it liñ ci jublu ngir rek ñu gën a bàyyi xel lii di alquraanul karim bépp jullit war na koo bàyyi xel waaye rawatina ñi aju ci cheikhul xadim radiallahu anhu ndax alquraan moom mooy delluwaayu bépp jullit mboolem dunduk doomu aadama eh, alquran daf koo ëmb daf koo làmboo jullit bi war caa bàyyi xel alquran la ko ca suñu borom subhanahu wa taala digal moo xam diggam ak boroomam la moo xam diggam ak mbindeef la moo xam ci wàllu boppam la ndax suñu boroom bàyyiwul ci alquran dara lu mata leeral te leeralu ko wa nazalna alayka alkitaaba tibyaanan li kulli cheyin wa hudan wa rahmatan wa bushra li nga xam ne mooy dundal róoyi mooy nos suñuy jëflante mooy leeral atte yi nga xam ne moo aju ci suñuy jaamu yàlla moo ñuy gindi ci yoon wi tax ñu àgg ci suñu boroom moo ñuy teg ci yoonu taxe inna hada al qurana yahdi lillati hiya aqwam muy téere bi suñu borom subhanahu wa taala sàmmal boppam ba dara ci wàññeeku wala dara ci ak soppi munu munu munu munu munu cee dugg inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la xaafizun muy téere bi nga xam ne mboolem nit yàlla yi di ay xejjam dañoo jeexal seenu dund ci liggéeyal ko amee ca nag martaba yu kawe kawe kawe ndax suñu boroom subhaanahu wa ay nitam mooy niti alquran ahlul qurani hum ahlullah téere boobu di alquran karim nag képp ku dégg dara ci dunduk sëriñ bi rek dégg nga wàcc waay wi nga xam ne alquran am na ko ci ak dundam loolu moom lu nit gàtt-gàtt ab dégg-dégg danga xam ne fa mu tegoon alquran tegu foon lenn na mu doon liggéeyale alquran jeexal ci ak dundam ci jàng ko ak jàng ko ak mokkal lu ko ak bind ko ak digle ñu jàpp ko ak di teral képp koo xam ne ku yor alquran la di ko sàmm di ko taxaw di ko toppatoo loolu moom lu nit gàtt-gàtt ab dégg dégg nga ndax sëriñ bi moom alxuraan la defoon muy euh, ndàmbam moom la defoon muy ab dencam moom la defoon muy trésoram te wax na ko ne qiraatuha kanzi wa jaahi wa izzati uniltu biha kawni ladallahi da sidqi mooy sama ndam mooy sama daraja mooy sama tedd nga ca ci laa amee nekk di boroomu dëggu fa suñu boroom subhaanahu wa taala ca muy martabatu bu kawe kawe kawe bokk ci as-siddiqin mu ne it jooju liggéeyal alquran ak sunna si yonente bi sallallahu mooy sama koom mi nga xam ne ci lañ may donn bi xidmatil kitaabi wal xadiisi yasbutu laa bi zahabin mawrusi diggam ak alquran ak nam ko jàppe woon ak nam ko daan dunde ak nam ko daan dundale lu baree bari bind nañ ko ci boo demee ci sëriñ Mouhamadul Amin Diop radiallahu anhu euh, mu ngi wax ci barab yu bari ci téereem boobu irwa un nadim ni sëriñ bi meloon ci alquran ñaari barab rek laa ci tudd mooy bi mu waxee bi sëriñ bi jógee ci géej gi ba nekk daarul mën naan sëñ Mad Lamin day wax foofu ne bam ñëwee day euh, nam nekkee woon ca yar ca ak mbooloo ma dafa gën a yokk dafa gën a fulu nee na kaamil alquran yi ñu ngi koy jàng guddeeg bëccëg bu dee bëccëg bi ñu ngi koy jàng bu dee guddi gi ñu koy tari wal masaaxifu tuqra'u fi nahaari bi nazari wa fi leyli an zahri xayb njaareem it am na lum ca wax nee na njaareem mujj na fi sëriñ bi nekkoon bokk ci barab yi gën a dund ci kaw suuf ca jàkka ya ca jàngukaayu alquran ya ca jàngukaayu xam-xam ya mu ne ak kaamil ba nga xam ne ña ngi ko doon wàcce ca buntu këram bis bu set ñeenti yoon buñ demee ba guddi ajjuma ñu jàng ko juróom-ñaari yoon mu ne nam doon binduloo alquran nag moom lu yéeme la ndax amul kenn koo xam ne nekkoon na fa mokkal al wattu mën a bind nga toog te nekkoo di bind saabu ab kaamil jeexee mu yaa ngi ci beneen loolu kon day wane rek sëriñ bi le ni nga xamee ne ñi ko dundoon ak moom niñ gisee ni mu fonke woon alquran ak jàng ko ak jàngalu ko ak di ko bindlu saa bu nekk loolu it day wane rek diggam ak alquran waaye sëriñ bi muñ xoolee ci li mu bind it dañuy gis bu baree baree bari muy wax li nga xam ne suñ boroom subhanahu wa taala jagleel na ko ci ngëneelul alquran ak ci barkeb alquran mu doon loo xam ne kenn xamu ko suñ borom a ko xam waaye nag dana koy junj ci ay barab ay barab yoo xam ne dana wax léeg-léeg lenn ci li nga xam ne alquran eh, jële na ko ci bokk na ci li muy wax ne ci alquran la yegg ci suñu borom subhanahu wa taala ci barkeb alquran ci wammatuk alquran ci ànd ak alquran ci la yegg ci suñu borom subhanahu wa taala mu wax ne barakatul qurani qaadat ni ila munzilihi waqad wasaltu za ila wax ne raafaqani alkitaabu fi masiri wa qaadani lillahi bi tabshiri wax ne qaadani alquranu qawdan lam yakun li gayri addahra kon ni ko barkeb alquraane wommate ba àgg ca yàlla suñu boroom jox ko ay may ba muy àgg ca yàlla it ba muy demit la àndal waaye nag ni ko alquran wommate it wommatu bégal la wammatug euh, mbégte rek ak ak ay xéewal laa ndeeg moom moo tax mu ne nag euh, na ko alquran wammate moom suñ borom da ko ko jagleel moom rek waaye wax na ne si suñ alquran it ci la moo leeral xolam moo ko laabal ci lépp lu dul ngërëmul yàlla lépp lu dul ngërëmul yàlla rek xolam set na ci xolam laab na ci ca loolu ci alquran la ko jële waaye ci alquran it mooy tataam gi nga xam ne ci la aaroo wax ne ayaatu rabbi nawwarat janaani kama biha anxu ilal jinaani wax ne barakatul quraani kulli taharat min gayri ruwaanin wa qalbi maharat wax ne ayaatu rabbi gadat xusuuni mustagniyan biha an taxsiini kon loolu da ciy wane rek ni nga xam ne ni la alquraan leerale ab xolam nga xam ne ci alxuraan la jaar ci la sóoboo ci yoon wi ko yóbbu ba àjjana mu ne barkeb alxuraan it moo ko laabal ci lépp loo xam ne du ngërëmul yàlla lépp lu dul ngërëmul yàlla rek te it mbar ay mooy mooy tataam ji nga xam ne euh, doy na ko walif muy muy sangewu ci ay ay tata waaye sëñ bi mu ngi waxee ne ci alquran ci la amee ay boot ak karaama yoo xam ne du ko tudd mukk da ciy sant suñ borom subhanahu wa taala waaye du ko feeñal du ko tudd mu ne ana analani kitaabu rabbi sirra bihi yubaahi zul baraaya al gurra ne na téereb suñu borom bi de tax na ma am boot moo xam ne yàlla mi bind mbindeef yi sax da da cay cay puukarewu ci ci kanam sang si ci kanam nit ñu baax ñépp kon loolu lenn la rek ci li nga xam ne sëñ bi junj na ko ci lim jële ci barkeb alquran أكبر أشهد إله إلا الله أشهد sunu

على السلام حي على الفلاح lenn wala junj na lenn ci li nga xam ne suñ borom subhanahu wa taala defal na ko ko ci barkeem alquran waaye moo tax yaatu gim yaatu ak bari gim bari ak xóot gim xóot nga xam ne kenn xamu ko may moom ak boroomam moo tax mu wax ne qaadaliya alquranu maa la azkuru min minanin min xayri rabbin ashkuru nee na alquran wammatal na ma loo xam ne ci ay xéewal duma ko tudd xéewal yooyu nga xam ne nag mu ngi jógee ci sama boroom nga xam ne mooy ngën ji buur boo xam ne dama koy sant kon day sant yàlla ci li mu ko defal ci barkeb alquran waaye du lu mën a tudd kon li mu ci wax ab juñ ay junj la rek bokk na ci li ko suñ boroom defal ci alquran mooy mu firil ko ko wax ne yufassirul kitaaba li man anzala wa kullu man maala li durri azala yàlla mi nga xam ne moo wàcce alquran moo ma ko moo ma ko moo ko firil sëriñ bi nag noonu mu demee ci alquran ci e, taxawu ko ci bëgg ko ci fonk ko waaye it li ko ci suñu boroom defal waaye gis nañ ne soññee na ci bu baax a baax ci biir ab yaram jàngale alquran ak jàng ko da ko caa jox cër bu yaatoo yaatoo yaatu digle képp koo xam ne dangaa sóobu bëgg a jëm ci suñ boroom wéeru ci moom na nga bokk ci ñiy takkook alquranul karim digle képp ko aju ci moom nga takkook nga takkook alquran wax de kullu muridin bi yaluusu fal yudim tilawatan li xayri zikrin xatursim bépp murid boo xam ne aju nga ci man na saxal jàng alquran loola kon muy ndigal lu leer a leer leer lu wér a wér ci képp koo xam ne daal bëggoon nga janoo ak sëñ bi mu jox la ndigal ba nga jëfe ko ndigalan ngi nii mu jox la ne la bul taqale ko ak alquran ba demee ci masaalikul jinaan sax ñi nga xam ne bëgg nañoo jël dara jiital ko ci njàngoom alxuraan gën jiital ko ci alxuraan yëkkati loola teg ko ci kaw alxuraan sëriñ bi ma ngay wax ak ñoom di wax ne ne loo lépp loo xam ne nit ki jël na ko bëgg koo teg ci alxuraan rek loola pexam seytaane la waaye nee na yow na nga fexe ba saxal jàng alquran waaw jàng alquran amul lu ko feete kaw lum néew néew na nga jàng alquran doonte ñetti isib la ngay jàng ci bis bu set sax nanga ko saxal kullu adim tilawatan lizal kitaabi walaw thalathatan min al ahzaabi fi kulli yawmin doona hijranin kama talabatul ilmi lahu zulin loolu lépp nga xam ne sëriñ bi digle ko digle ko nag yemu ci waaye barab yu baree bari dañuy fàttali ngëneel yi al jàng alxuraan ak liñ mën a jëlee ci jàngale alxuraan loolu lépp mu di soññee ci noonu bokk na ci lim ñuy soññee di ñu wax ne am na ci njariñ la ci njàng jàng alxuraan mooy ak ubbeeku ak ubbeeku ak jege suñu boroom mooy boo ubbeekoo lépp lu baax dalay yomb lépp loo yóotu ci lu baax dalay yomb te nee na loolu jàng alxuraan da koy joxe mu wax ne kitaabun azizun la yuraai aabidun wa yatluuhu illa waxtawal fatxa wal qurba nee na la boo xam ne <coughs> jaamu ko te yàlla bu taqook moom di sàmmanteeg moom di ko jàng fokk nga am ak ubbeeku fokk nga jege suñu borom subhanahu wa taala mu ne it alquran jàng ko kóolute la kaaraange la ci mbooleem xeeti balaa yi kon lépp luy balaa bu nar a wàcc lépp loo xam ne lu nara lor doomu aadama la taqook alquran di ko jàng mën na koo musal ca loolee mu ne man qara alqurana min azan amin qad qultu za wal qalbu minni mutmain képp ku jàng alquran daal dëgg mucc ci lor ca lii maa ngi koy wax ca sama xel dal na ci lool li xaari il qurani xifzu lbaaqi wa ismatu lbaaqi ma al itlaaqi kon kiy jàng alxuraan suñu borom subhaanahu wa taala moo koy sàmm moo koy aar waaye li nga xam ne képp kuy jaamu yàlla bëgg nga ko muy ab yool ak tonowu nee na loola kuy jàng alxuraan da nga ko ci amee ne rabiha man yaabudu bil qur'ani munzilahu ribhan bila xusraani mu ne kiy jàng alxuraan tonawu nga mooy tanawu du ànd ak pertement bari na koo xam ne mu nga yëngatu ci dara di ca di ci jóg ko daanu bu amee léeg-léeg bénéfice léeg mu perte waaye nee na alquran loolu moom amu ci maanaam tonowu rek ngay def waaye doo ca perte mukk mu ki nga xam ne day jàng alquran <coughs> ab yoolam day dolliku saa bu nekk tey darajaam day yëkkatiku ci àdduna ak ci àllaaxira ajru lazi yatlul kitaaba yanmu wasiituhu dunya wa uxra yasmu teyit li nga xam ne mooy yàqal jullit bi muy seytaane fu ne mu di ko fa jaar jafe mucc lool sëriñ bi nee na kuy jàng alxuraan da nga mucc ci seytaane te seytaane moom ku ci mucc sa digg ak àjjana dara du fa dox ndax moom mooy gàllankoor jullit bi mooy gàllankoor doomu aadama bi ci dox diggam ak lu baax bu la suñ borom musalee ci seytaane rek mooy ubbil na la yoon wi nga xam ne moo jëm àjjana moo taxoon mu wax ne qiraatul quraani amnun min lain wa min shaqawatin wa min makril muin nee na jàng dalay musal ci dalay aar ci seytaane ma ñu rëbb waaye di la aar ci texee di moo tax mu waxoon ne kon texe daal ñeel na koy jàng alxuraan di ci di jaamu yàlla di jàng alxuraan fa tuuba li abdin yaabudullaha rabbahu bi tartili quraanin azimin yaqi karba kon sëriñ bi li mu wax ci alxuraan lu yaatu la loo xam ne war naa tax képp koo xam ne ab jullit nga waaye rawatina ab taalibi nga fonk alquran kon nag bu ñu nekkee ci aw weeram war na ku nekk la nga ca daan def nga góor góorgóorlu yokk ko bu baax a baax ndax shahru ramadan alladi unzila fihi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda walfurqaan kon war nañoo gën a góorgóorlu ci jàng alquran waaye gën a góorgóorlu ci dimbale ñiy jàng alquran gën leen a taxawu ndax liggéeyal ci sëriñ bi ci wàllu googu ndax képp koo xam ne yaa ngi wut ngërëmul sëriñ bi mu leer na lii de yitteel na sëriñ bi nga nekk ca kon yaa ngi koy liggéeyal fexe ba ñi nga xam ne lépp lu luñ man def ko ci ñay jàng alquran nekk ci condition ya gën a baax ya gën a rafet ndax moom ginnaaw moom la sëriñ bi gënoon a fonk kon ña cay yëngatu war nañoo am nekkiin wu yell ak daraje alquran ak wàccuwaay alquran ca sëriñ bii fi nekk ñu koy ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha yàlla yàggal ko fi te wéral ko joxe na ay bind yu baree baree bare ci wàll googu nga xam ne ba muy sàkk bis ngir toog ak ñi yëngatu ci alquran ak xam-xam di leen teral di leen di leen di leen soññ yàgg na lool lool day wane rek kon ne mu nga ca tànk yi maamam ja ci fonk alquran ak fonk ñooñu alquran kon nag war nañ ko cee roy bu baax a baax a baax kenn ku nekk la nga doon def jëme ko ci daara yi alquran yi la nga doon def jëmale ko ci ñiy jàng alquran nga yokk ko xam ne loola amul liggéeyal sëriñ bi liggéey bu ko gënal ci loolu ndax ba mu fi ba mu fi bañ koy bañ koy gis gisuñu lum jiitaloon ci loolu kon nag yàlla nañ ci suñu borom subhanahu wa taala defal tawfiq yàlla nañ am ngërëmal sëriñ bi ci alquran lépp li nga xam ne wax na ko ci njariñi alquran yàlla nañ ko yàlla nañu suñu borom defal tawfiq ñu am ko ca ñaan suñu borom yàggal fi Cheikh Mouhamadou Mountakha ba mu àggale yéeneem yi ci daara yi nga daara ji nga xam ne mu ngi koy mi ngi koy liggéeyal maamam di ko liggéeyal lislaam jëpp te wax ñëpp dégg ko muy la ca jiitu mooy alquran moo tax ñu jiital te daaree alquran joo xam ne ndax sëriñ bi moom lu ñuy lu ñu koy defar rek alquran ci jiitu kon yàlla na ko yeggali ñu fekke ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.